production. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen nuyoo woon ci benn production ak le président ma sàmba waaye di leen ziar di leen yéegi seen yéegu waaye kenn ku ci nekk rek foo nekk di ñu seetaan ak ki ñu seetaanagul ñu ngi lay nuyoo suñu loxo xol di la wax asalaamaaleykum wa di la ziar ci weer wu tedd wi di weeru koor. macha allah di ñaan yàlla rek yàlla jële fi mbas mi euh, ba mu mujj ci ay nettali wax dëgg yàlla ñuy toog ba naan atum corona ba te lu mel noonu sax buñ ko gisati ak suñu bët waaye di balu ñëpp ak nag kuy wayjuur kuy mbokk kuy xarit kuy wëlëre di leen balu ak waaye di leen ñaanal yàlla nag di leen baal ak ñun itam di ñaan ñu yokk nag ba yëg ko am ubbeeku te teewe at yu baree baree bari waaw comme ni ñu ko waxee woon nag ci suñu semaine bi passé ci koor yi di ñaaxaat suñu doom yeeg suñu goro yeeg suñu yenn rek ñoo xam ne sax ay rakk la ñuy doon ci ñu ci weeru koor bi ci taajin beeg jëfin gi ah toujours rek ñu ngi ci weeru promotion bi rek wax dëgg yàlla di ci profito ñaan nañ nag yàlla fekke déwén yu bëree bëree bëri waaye nag di ñaan at mu ne rek ñu am ci promotion yi nag di gën di dajale muy gën di bëri macha allah kon fi mu nekk nii ñu ngi jub ci kor yi ndax li ci des bariwul ay fan la ñuy wax ci korite tabaarakallah comme la ma waxoon rek ma di ci si waat ndax yàlla ay mbiram moom moo koy tërale nu mu ko neexee moom moo xool kii mu may ko ba doy sëkk moom moo xool kii mu may ko lu yem moom moo xool kii mayu ko dara ki nga xam ne mayu ko dara te xëy na moom sàmm may may na ko mu mu bëtt ko moom dem tàllal loxo kooku féex na kooku féex na waaye ki mel ni man defe naa la ñuy woowu miskin mooy ki nga xam ne loxoom jotul ginnaam dooleem bariwul te xëy na am na kersa jóg tàllali loxo xëy na am na kersa jóg dem ñaan xëy na am na kersa jóg dem wax soxlaam euh, nga dëkk nag ku mel ni man macha allah mu xaw a jaboot jaboote njaboot gu sew nag te tabaarakallahu nga gis ko nag yor sa junni yu bari nag léeg-léeg sax dangay dem bànk retiré ji léeg nga tegg sa natt def sa xaalis sa poos di ko xool mu di la xool ay doomam maaseeg sa doom nga war a mën a dem yow xool ka ca maaseeg say doom kenn nga xool xale bi boo demee xam nga yére bi koy jot xam nga fi ñuy jaay yére ñëw ba pare walla nga jënd wala nga jënd tissu bi yëpp rafetal la soo ko jëndee mën nga ñëw ne ko ama ah, di diw dama ko jëndal dama jëndaloon sama doom diw yére waaye ndekete bàjjinam da koo jëndal wala turóondoom da ko jëndal wala rakku papaam da koo jëndal te xam naa yére yu bari yu aussi góob ma ni dina dina am boobu njëriñ ndax xale li ñu sol yére olof bari woon moo tax ma gis benn bi tolloog sa doom ji ma ne yow jënd bu fekkee jënd goo gaaw jarul ngay jënd jox ko bii mu ne la ah kañ jërëjëf yal na la yàlla fay ki ñu koy joxe na nekk gëm yàlla nag ki ñu koy jox bu mu ci gis ne kii da koo xeeb ak déedéet comme ñaanoo ko moo yëkkati jox la jëlal ngir yàlla ndax ku du nangu ngir yàlla doo joxee ngir yàlla rëy baaxul jël ko lool du dara parce que moo la ko may te ñaanoo ko kon jëlal bu ko yàqal tuyaabaam gisaat nga keneen ku jigéen gis nga tissu bu baax boo xam ne bii xale bi mën na ko ñëw bu la neexee sax woo xale ba ñëw nga ne ko am man maa la may tissu bi lii man maa la ko ci dolli pour nga fay ñëw ay waay tàndiw nga ne ko waaw dama bëgg boo màggee tamit nga nekk Richard man tam nga di ma may xaalis xale noonu lañ koy nexee bu ko defee mu yëg boppam xam ne kon am na lu koy xaar boroom jom la war a doon noonu mooy àdduna dëkk ngaa nit ki ba ci ndugg mi ba ci ndugg mi ba ci ndugg mi jënd ay 15 ginaar jënd ay 20 ginaar di yëkkale fee ay 4 ginaar ay 3 ginaar di dof dof loog ñu lay sàmba mbayaar fii di la woy fee bu dee yàllaa tax de baax na waaye bu dee ngistalu àdduna bi yee tax perte nga de jamono ji moom fi mu ne lu fi waay def te yàlla taxul yàq nga ko yàq nga ko bu baax a baax a baax ginaar yooyu dëkk nga ku mel ni Astou Diawara te yaa ko tey xam nga ne loxoom jotul ginnaam day góor góorgóorlu dong di puudaroo ko parce que waaye mënu ko am ko nga dugal ñaari ginaar ci siyo yónni sa doom ni ko demal neel sa tante diw li ma yóbbante woon a ngi noonu bi ma demee lii laa gis jox ko bu ñëwee na li nga ne ko yàlla laa ci wut yàlla laa ci wut de bu ma weer bu ma yàqal mu noppi teg ci sa ñaari kilo soble boo ko defee keneen ka nga taxaloo def ko keneen ka nga taxaloo def ko buñ nee ginnaaw suba la ginnaaw mën nga rek te da def defal loolu yow bu ko defee bu xëyee du dem marché waaye kooku yow bu la ñaanalul sax xam nga ne yàlla na la fay waay te bu la ñaanalee yàlla nangu ndax dafa bég jullit bu bég la rawatina ci weeru koor ñu ngi topp rek naan dimbalante dimbalante mais dimbalante bari na façon de jarul millions yi bari de benn kilo soble sax dimbalante la ndax bu dee koñ bi da di juróomi koñ wala juróom benni koñ yow xool nañ koñ ba yem nañ toll asu jaaw mii rek moo fi xaw néew doole mbaggam dafay néew te ker sàmm may na ko kat mu dugg ci kër yi di ñaan day taaba taaba rek waaye dëkk bi neexul ma yëkkati kilo yónnee ko maari jaawa yëkkati kilo yónnee xawaa yëkkati kilo yónnee kii yëkkati kilo yónnee bu ko defee bu yàggee kilo yi bari kookat bu korite jotee dana korite ba lend mais sur lendemain sax dina am lu mu suturloo dina am lu mu jëfandikoo waaye déedéet da ngay bàyyi ba ñuy wax ci rajo bi télé bi fu ne nga dégg ñu naan boo génnul muudum koor sa koor du nangu ustaas yi wax a wax a wax ba géex nga doog faa yénaw ceeb ba doo jënd mi ngay lekk tam de yónni sa doom mu yore bool ba demal joxal ma sa taan yow ba demee ne ko sama yaay nee na muurum koor mi demal ma sa taan diw ba ne ko sama papa nee na muurum bi ba pare daje ndax xale bi yegsi na man kay dama ko ne ko yotal ma ko sa tante diw man kay dama ko ne ko sa muurum koor moom joxal ma ko sa tante diw xam nga ne tante diw jéppi na la man de mel na man dama la koy delloo bu dee man mii rek jaaw dama la koy delloo man ndax may ma ba pare di yàllaay maye yow nit yàlla jaarale sa loxo nga war maa jox ba pare bëgg ma cee yeb di ma ci ngalañ ngalañ ci digg mbedd mi dama la koy delloo nit ñi nañu am fulla te gëm seen bopp loo may may te mayoo ma ko ci fulla mayoo ma ko ci sutura mayoo ma ko ci dignité naa gëm yàlla mi ma sàkk sàkk la ñi fi doon xiif ñaata at ci ginnaaw xiif yi leen ku xiif tey bu subaa di nga suur ku ñàkk tey bu subaa di nga am loolu la ñuy ñaan ñëpp ñi am tam yal nañ koo nii di am waaw ñaanaluñ fi kenn nag di am di dellu ginnaaw dañuy ñaan yàlla nit ñi di avancer mais nañuy dimbalante te yàlla tax balaa ñu fi toog di ay xaar ay président ak ay ministre ak ay nangam ñooñu ña nga ca kaw li xew ci ruq yeeg ruqaat yi ñoom xamuñu ko ñun ñi dëkk suñu biir kenn ku ci nekk ci ñun xam nga sa bopp kenn ku ci nekk ci ñun xam nga koo tane kenn ku ci nekk ci ñun xam nga loo mën ak loo mënul ñii dañuy wéyee seen ngor ñii di wéyee seen sutura ñii di wéyee seen teraanga ni ngay demee di xotti say doom yore seet yi corona bi tey jii am na ñoo xam dañ ci occasionné wu naan waawaa corona bi dëgg la mais xëy na xale xamul loolu yow nag boo yoree xale nekk ak sa moroomu nawle yéen ngeen yor ay xale yoo xam ne dañoo tolloo war ngeen mën a dimbalante te yàlla tax magum jëmm kilifa war naa toog ba suuf sedd wala ba lëndëm wala ba fajar nga nuyoo nuyoo lu man ko dama fee jaaroon di di siyaare waale ci weeru koor gi seet lu dëgër tuuti nga jox ko soxna sa ci kër ga wala boroom kër ga ci kër ga di góor te loxoom jotul ginnaawam sañ bu mu ne ah nga ne ko déet dimbali ma kat damaa bëgg nga suturaal man damay damay damay wut tuyaaba loolu la ci rek ñun ñëpp benn lañu mu dem mais déedéet doo ko def de lii ma la wax de ci la ñuy def ba pare nag sañse sañseel seeni doom di la romb di jaagar jaagar léeg-léeg di la ci boole di la kenke waaye yow na ko kori gi nag ah yow ni ma la gisee nag pare nga ko de yii kori gi moom ah. te ñoo la gën a tay ne ba nga demee ca bitig ba di yónni sa doom walaatu diwlin ñuy rosi ginaar yi xam ne du ko mat ñoo la ko gën a yëg waaye nañ lay kokkali bu ko defee ne yow nga mata di di manquant ba mel ni ma nekk fi ay kori ay ren ma daj bala togg man de bitig ba ma demoon ba ma téléphoné sama mag ju góor ji jaru ko jaru ko loolu nga koy wax la bëgg a xam dul dimbali jaru ko yoonam new ci ba nga di ko ko wax matal sa mat burul ren di déwén ñi fi dawaloon daaw oto yu ndaw yi ñooy dawal tey 4x4 yeeg 8x8 yi nànk dong àddina tukkeegul nañ def nànk gaal gaa ngi yenu marchandise yi ñëw tax wallaahi bu teeree kenn ku ne dinga nga yenu sëf këmb faj sa soxla te kenn du la xamal dara kon nag njëkk a fecc taxut a mujjee géew kori gi daal loolu la ñu amoon di ci indi ñu xam ne nag bàyyi yàlla bàyyiloo nañu xel ren takkuloo nañu mask pour ñu toj suñu làmmiñ yi takkuloo nañu ay verre pour ñu yemale suñuy xool kori gaa ngi ñëwateeti yal nañ yàlla may ñu fekke ko at yu baree baree bari waaye ñu xool bu ren bii nga xam ne lu baree bari nit talu ko ndax feebar bi te kenn indiwu ko fi ku yàlla te kenn nit mënu ko fee jëlee ku dul yàlla kenn kenn tanewu la ci waaw yàlla mi ko fi indi dong moo ko fi mën a jële te at nag macha allah bu ñu yàlla mayee wér ak tal ak fekke gaaw na bu ñu jógee ci yaraange ren gii nañ ñu servir de leçon pour la prochaine fois parce que incha allah bu ñu ko fan guddee dinañ fekkeewaat ay kori kori kori waaye bii daal lu ci waay bëgg xamee di nga ko ci xame lu ci waay bëgg a ràññee di nga ko ci ràññee ah ñu rafetalaat dëkkin gi ndax àddina amul solo ba ñu umee koo te li ñu fi tàgg ci tàggee ci nit kenn xamul nu mu toll wallaay ñàkk fu la taxu leen a dem te ñun ñii fi desit de wóor nañu suñ def lu baax teguñu fi de dañoo dañoo dañoo yàllaa ñu fi bàyyeegum rek amagul ci ñun soxla te ku ñu takk sa ñaari loxo takk ci sa ñaari tànk ba yor la wallaay li nga xam ne juróomi téeméer ya ma yoroon génne woon téeméer dimbali sama moroomu jullit baaxoon na ca ndax nag euh, maye ba mayeloo soxla it dug mat maye ba maye loo xam ne it woo nga koy du yëfi nit waaye nag boo xamee ne dara dara lu ne ni tarfatal ay ni mën na cee des liibaru soble sax billaay ndimbal la ñeenti nit bu ñu la yónnee ku ne liibar 2 kilo la 2 kilo baax na ci kër gu ndaw loolu dara parce que àdduna la dañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax jaboot yu bëree ngi tey ñu leen di foye jaboot yu bëree ngi tey ñu leen di tuutal jaboot yu baree ngi tey seeni njaboot di leen wan ne man solu naa te woo dina am aka fee bari di tëban toog ne ci koñ bi di jaay daam de fer sa jëkkër di jaay la boos doom yi calli calli ngeen réew fuy bew lee hmm? léeg ñu def ko fi ci quartier vingt ans ca kanam dey doom ya daan sol tuba yu xotteeku ya tey oos ah léeg ñu romb it naan la papa diw nga gaaw sëgg de mbaa ngi ñëw ci tudd ma teel a daw te naan tey yi dama am rendez ak médecin bi moo tax xam naa 10 heures la ma waxoon balaa heure tudd ba ndax rus nga. ca koñ ba nga woon di jaay baayam mbagg mu diis say jabar di jaay yaayam mbagg mu diis waaye xale ba moom am jom rek am fulla rek ak lu yàlla nar a rafetal kon nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax man daal kon tey xam naa loolu moo nekkoon waxtaan wi ci korite gi ñuy ñaan yàlla nag yàlla jële fi mbas mi ah suñu njaboot gi tamit di nekk di dàqanteeg force de l'ordre yeeg yooyu itam ñu bàyyi ko tamit am yar am teggin parce que lii temps la rek yàlla yërmaande bi yaatu na ñu ngi koy ñaan am nañ yaakaar aussi ne ah, mbas mi dina fi jóge balaa yàgg am nañ ci yaakaar de waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan suñu borom bu fi jógee tam ñu profitoo waale nag ñu tam defaruwaat nag wax dëgg yàlla saaboo ngi ndoxo ngi daal nanu sangu ba set daal raxasaale xol yi raxasaale xel yi te wàññi suñu suñu yaroo suñu sago gi wàññi demee nu ñu neex wàññi wax lu ñu neex lu ñu xalaat def ko lu suñu xel dem ñu def ko nañ ko moytu bu dee lu baax nañu def ko mais bu dee lu safaan moom nañ ci arrière bu baax a baax a baax di leen fàttaliwaat nag numéro boobu nga xam ne moo affiché ci suuf mooy numéro whatsapp bi nga xam ne képp ku am sa thème boo ko ci dugalee incha allah dinañ ko faram fànce man ak sama sët bàcc ma sàmba président benn production ak soxna Astou Diaw la woon seen waxtaanu ndénkaane ci koor gi ah, di ñaan yàlla ñu teewe ko at yu baree baree bari incha allahu taala yal nañ yàlla daal balaa kooru 2021 daal lépp ca kaw ca kanam lépp yemb wér am naataange am sutura am yokkute am ñu ngi koy ñaan ci kàttanu yàlla ak daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen tàgguwaat di leen joxaat dig daje incha allah ci beneen seen émission dénkaane soxna Astou Diawo ak ma sàmba ci benn production fii ci kër Mbay Fall.